léegi nag ñu ñëw ci lawazimul fitri li nga xam ne mooy tax saa yu amee ci ab jullit ku woor sa koor gi yàqu na li waral nit kooram yàqu lawazimul fitri arbaatu anwa ñeenti façon moo ci am yoo xam ne dana yàqu koon ñeenti façon la imma li yàq sa koor yalzimu alqadaau ma alkafaara mën na am kii li yàqu kooram ñaar lay def dina fay waaye dafay kafaara waaye am na boo xam ne it wal qadaaw faqat am na koo xam ne dina doog ci biir koor waaye dafay li ñu tuddee al qadaaw day fay rek am koo xam ne kafaara kese la am na yoo xam ne fidya mooy nga am loo jotee loolu yëpp dinañ ko leeral ci ay détails moo tax maa yujibul qadaaw ma al kafaara lii waral nit ki fay ba boole ko koo kafaara ñu ne yajibu alqadaau maa alkafaara ala man afsada sawma ramadan xaasatan amdan muxtaaran min gayri mubixin lilfitri maanaam ki nga xam ni dafa dog ci bëccëgu weeru koor te bi mu koy def moo ko tey kenn forcé wu ko su boobaa kooku non seulement dina fay waaye dafay kafaara danañ ci ñëw lan mooy kafaara waaye nag walaw afsada sawma gayra ramadan fala kafarata alayhi bal alqada faqat bu fekkee ne nag dafa kooram dafa yàqu te kafaara waru ko xadaa rek moo koy war te mooy koo xam ne dafa dafa fàtte lekk ci bëccëg bi wala mun naan ci bëccëg bi waaye daf ko fàtte yooyu dañu wax ni dafay fay benn fan rek walaw afsada sawmul qada wa ramadan beneen bi ci des mooy ki nga xam ni dafa ànd ak soxnam te tey ko kooku dina def ñaar dina kafaara dina fay ba pare dina kafaara ndax lu tax mooy bëccëgu koor góor waroo ànd ak sa soxna waroo am rapport waaye bu fekkee ne guddi gi la ndax alxuraan may na la nee na ànd ak seen soxna ci guddi gi waaye bu ngeen demee bu nga xam ne fajar a ngi ñëw su boobaa fa gi di commencé kon aljimaau amdan kooku dafay waral non dinga di kafaara di nga fay ba pare kafaara dinañ ci ñëw na bu ñuy détaillé lan mooy kafaara kon li nga xam ne moom laay wax léegi mooy kafaara lan mooy waral nit ki fay boole ko ak kafaara wax naa ne ñeenti façon moo ci am ndax ki nga xam ne dafa lekk wala mu naan wala mu ànd ak soxnaam te moo ko tey kooku dañu wax ni ñaari yi ñett yi ñu wax yépp dafay waral nga fay dafay warit nga kafaara léegi nag maa yujibul qadaa bila kafaara lan mooy tax nit ki fay kese te du am kafaara yajibu alqadaau bila kafaaratin ala man aftara bi usrin min asari almubiati lil fitri ki nga xam ne dafa dog te dog gi ngant la maanaam dangay tukki danga feebar danga am garab yooyu jël te yoo xam ne il faut nga jël ko ci bëccëg gi yooyu lañ wax ni kooku dafay fay rek fay bëccëg waaye doo doo doo doo kafaara wala koo xam ne dafa lekk wala mu naan wala mu ànd waaye daf ko fàtte ci bëccëgu weeru koor kooku dañuy wax ne moom it dafay fay rek waaye du du du kafaara beneen bi ci des wa yajibu al qadaau kadalik bi kulli ma wasala ila al xalqi min xayri famin kal ni naka noonu ki nga xam ne tamit dafa am lu yegg ci boli gi te jaaru ci gémmiñ gi lu mel ni mu jaar ci sa nopp yegg sa boli wala mu jaar ci sa say bët yegg ci say boli wala mu jaar ci sa bakkan yegg sa boli loolu bu yeggee ci sa biir bëli gi rek dafay da ngay fay benn bés waaye doo kafaara beneen bi wa kazalika wusulu taamid siwaak al mutaxallal ila al xilqi fihi qada naka noonu ki nga xam ne dafa doon soccu soccu boo xam ne lu baax la léegi nag nga di ko soccu ba loolu nga xam ne dafay daje dema dem ba dugg sa biir bëli gi dañuy wax ni dañuy wax al qada dafay fay benn bés beneen bi ci des mooy kullu man aftara mutaawilan tawilan qariban wa huwa maa yaqwi maa yaqwi sababuhu wa laysa alayhi illa alqadaau kaman saafara aqalu min masafati alqasri fa danna anna alfitra mubaaxun lahu fa aftara wa man aftara naasiyan suma aftara aamid suma aftara aamidan dannan ibaaxatu alfitri lilfasaadi sawmihi wa asbaha junuban wa asbaha aw asbaha taahira min alxaydi ولم يغتسلا إلا بعد الفجر فظن أن الصوم هذا اليوم لا يلزمها ظنا منهما أن من شروط صحة صوم الاغتسال قبل الفجر dañu wax ni maanaam ki nga xam ne dafa natt rek ci te mooy nga yaakaar ni jant bi sona te jant bi sowul wala nga yaakaaroon ni distance bi ngay war a tukki distance la bu ñu war a wàññi te fekk na matul kilomètres yi ñu waroon wax nga wàññi nga nga nga doog yooyu dañuy wax ni su boobaa da ngay fay benn bés rek waaye doo kafaara beneen bi ci des mooy ki nga xam ne dafa dog bi muy dog dafa yaakaaroon ni jant bi do heure dog jot na bi mu dogee toog tuuti gisaat jant bi su boobaa kooku dafay continuer waaye dana fay benn bés naka noonu ki nga xam ni man sabaqa ma al madmada wal istinsaax ila xalqihi naka noonu koo xam ne dafa doon galax ndiku affaire yu continuer kooku dafay fay benn bés moo tax yonent bi daana tere même boo nekkee ci koor yonent bi daana wax ni boo wooree booy galax moytul affaire bi di jàll ndax su booba mën na yàq sa koor naka noonu kii sorox yooyu yëpp bu fekkee ne jàll ci sa buut rek bu su booba da ngay fay benn bés wa kadalika alxaaidu isaa aftarat mutaamidatan fi yowmi aadatiha suma zaara annaha xaadat qabla an qabla an taftira maanaam koo xam ne jigéen boo xam ne dafa gis mbërëg su dogee mutaamidan fi yow yowmi aadatiha maanaam dafa dog ci moment bi nga xam ne ci lay gis mbaaxam bi mu demee ba mu yàgg suma zaara annaha xaadat qabla an yaftira mu dem bu yàgg nag ci la doog a xam ne ah dog gi day cest à li mu gis mooy dog na waaye bi muy dog booba ngant bi ñëwul ci la ko doog a xam ne ngant la su boobaa kooku benn fan rek lay fay cest à jigéen ñi nag war nañ di contrôler loolu maanaam mën nga xëy di woor dem mbokk yi nga jàpp ne tey sa bésu règle la tax nga bañ a woor su boobaa nga dem ba mu yàgg nga yëg ne kat sa bii du sa bésu règle soo dogee da ngay fay benn fan bu fekkee ne loolu nga doon calculer moo tax lislaam da lay wax ne wooral rek saa yu la affaire yi bi demee bu fekkee ne da gis mbaax même bu dee bëccëg la nga gis mbaax su boobaa da ngay continuer da ngay bàyyi noonu lekk ak naan waaye bu paasee nga fay benn fan boobu ndax jigéen may nañ ko bu fekkee ne dafa gis mbaax du du fay julli gi waaye weeru koor bi moom bu dee ne koor la da koy fay fay yi nga xam ne moom nga gisoon sa règle ndax règle ci jigéen lu mu gudd gudd du passé 15 jours ndax dafa am ñoo xam ne seen règle dafa gàtt am na ñoo xam ne benn ci mazhab Maalik dañuy wax ni règle lu mu gudd gudd benn yoon deret yi mën na génn benn yoon rek te dootul ñëwaat waaye am ñu wax ne mën na am ñetti ñetti ñetti fan am ñuy gis ñeent am ñuy gis juróom juróomi fan juróom benn une semaine waaye dañu wax ne lu mu gudd gudd du passé fukki fan ak juróom règle ci jigéen su passé quinze jours rek xamal ne nekkatul deretu règle na dem seeti E, docteur bi ndax loolu feebar la loolu la ñu tuddee dammul istixaada laay mujj nekk dootu nekk dammal xeet beneen bi ci des man taladda fi nahari ramadan bi mubasharatin aw qablatin fa ada fa amda ay xaraja minhu maniyu ki nga xam ni dafa yëg bànneex plaisiru bëccëg maanaam dafa yëg bànneex ci bëccëg bi benn dafa joññoo ak ndaw si wala daf ko akolaat li ñu tuddee benn liquide li ñu tuddee liquide blanc génn ci mooy maaun raqiq ndox mu mu sew génn ci te weex dañuy wax ni yaxruju inda yi mooy ndox moo xam ne li koy génne mooy bànneex bu ndaw waaye ndox mi nga xam ne bànneex bu mag moo koy génne bu génnee ci nit su booba eh, dañuy wax ni dangay ngay kafaara beneen bi ci des mooy koo xam ne isa wa kadalika al muxmi alayhi isa afaqa fa innahu yaqdi iza ughmiya alayhi yawman kaamilan maanaam yow da nga ki nga xam ne dafa xëm xam nga am na yoo xam ne dañuy nekk daale coma maanaam woor nga ba ci midi wala 11 heures nga daanu nekk daale coma xool nga feeg boo demee ba xiqi su boobaa da ngay fay bés boobu aw aksar loolu tax boo amee gàllankooru xëm yaa xam teeloo koy yëg ndax boo yeewoon dina fekk ñu jox la ndox nga naan su boobaa da ngay continuer rek waaye da fay benn bés bu fekkee ne itamit nag danga nga bëccëg bi yëpp la même chose lay doon kon loolu yëpp ñu bàyyi ci xel beneen bi ci des yooyu kon mën nañu taxaw mooy masalatul xay kooku danañ ci ñëw maanaam li ñu tuddee wacc maanaam bëccëgu koor ki looju jël sa loxo dugal ko sa biir gémmiñ wàcc bi génn kooku lañ wax ni loolu ba amee ci yow non seulement da nga da nga fay koor gi ndax yaa ko tey waaye bu fekkee ne teyoo ko nag wecc bi dafa ñëw noonu rek waaye dala dara jàllul ci sa ci sa biir bëli gi su boobaa doo fay koor gi waaye bu fekkee dafa am lu jàll da ngay fay koor gi waaye bu fekkee ne nag yow yaa ko tey moo tax mu ne dafa bàyyi wax alqadaaw moo tax yonent bi wax na ci xadis ne man zaraahu alqayu fa alayhi alqadaau wa man istataa amdan falyaqdi mu ne képp koo xam ne danga li ñu tuddee wàccu dala bett dañu wax ne fay rek nga war a def waaye koo xam ne nag yow yaa jël sa loxo dugal ko ci biir boo boo am lu génni kooku dafay mel ni yaa ko tey kon mën nañu taxaw foofu ci ci point boobu ñaan yàlla li ñu ci jot jàngale ci wàllu lu lu dul yàq koor ak li koy yàq yàlla ñu yàlla def ñu dégg ko eh, lu ci ja baax ngeen xam ne mbaaxu yàlla la lu ci juum ngeen xam ne ñun la ñu ñaan rek yàlla ñu yàlla may ñu woor ci jàmm li ci des ci ay fan yàlla ñu yàlla mottili ñu mottili ko booba lii daal moo doon waxtaanu tey bi di ñaan rek yàlla ñu yàlla defal tawfiq defal leen najaa yéen ñi nga xam ne yenn yéen ay techniciens yi enregistré ak caméraman yi ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla gën a liggéeyal seen i liggéey te li ngeen ci yéene ci seeni i site bi yàlla yàlla barkeel ko ci barke yonent bi sallallahu wa sallam ci barke weeru koor yi aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa salaamu aleykum wa rahmatullah